bañ koy dénk mbir nangam ci dëkkam ñu suñu ñoñ yi bañ fa ñëwee amoon nañ benn relation mucc ayib Sénégal ak ñi am nañ relation mucc ayib bu ko takkalee tamit gëm naa ne wax yoon aayawu ko dara aayawu ko am na droit takkal ko ko xam nga senegal fu ne nii dafa am loo dafa dafa dafa dafa am loo ñoo xam ne tey lu dul histoire rek la ñu bëgg a def histoire lu dul histoire la bëgg a créer des histoires xool ñu koy doxale mën ko xool mën ko mën ko ñu ko def seen mbokk journaliste yi tamit dañuy xool foo xam ni nii tey buñ ko mënee def titre journal am la na jar loolu tamit mën lañ mën loolu tamit kenn mën leen ko kenn mën leen koo bañal je me suis dit que ne de général bi bu ko France takkalee ça veut moom jàpp nañ ne war nañ koo takkal France seen constitution aayawul loolu ko gëm naa ne constitution Sénégal tamit aayawul loolu loi Sénégal tamit aayawul ñu takkal ko nangam puisque suñu officiers yi ñu ngi dem Nations Unies ñu leen takkal ay raaya ñu ngi dem yeneen pays ñu leen takkal ay raaya yoo xam ne nii tey ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw fi biir Sénégal ko takk loolu amul amul benn problème maintenant nag xam nga moom kër bukki fu ne nii ñàkkul coow fu ne nii moom lu génn rek ñu ne nàngam ñu ne gépp fu mu ne ñu fu mu bëgg a yóbbu wax boo ñu nga bëgg indi benn dualité boo xam ne entre kii ñoom pour ñoom dañoo jàpp ne général poste bu ko fal sanction la mu ab jàngalekat bu ñu xëyee rek affecté la Kédougou mbaa yóbbu la Matam bala la nangam bala nangam ñooñu ay nit ñoo fa ay dëkk fa ay préfet fay ay gouverneur fay ay sous-préfet ay pénitencier ñoo fay ak ñeneen ak ñeneen ñeneen xam ñoo fa nekk loolu mënu ñoo jàpp ne sanction la problème bi foofu la am na si ñoo xam ne moom histoire la ñuy war rek man dama si man nu ko gisee mooy day war na ko takkal seen yoon aayoo ko yoori Sénégal aayoo ko bu ko neexee takk ko ñoo xam maintenant nag président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ku mu neex fal ku mu neex affecté loolu yoon moo ko ko may moom mooy chef suprême des armées kay moom moom mën na wàccee ko ko neex yéegal ko ko neex loolu tamit warta warta mën a jur coow maintenant nag à chaque fois dana ñu ne Diomaye waa ji na ko comment dire kii sanctionné na ko Macron defaraat ko loolu mooy la Macron kay am ko takal kay raaya rek jowum caal d'accord dinañu ñëw ci kanam tuuti ak euh, suñu gan di maam Thierno Ndiaye par rapport ak ministère yi bi nga xam ne moom moo xew.